ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بوكي ني جاكار لو كي سين شين سفينة تي في ني لين نوي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دي سانتاد يالا غنا بو نيو مايي نيو ديلو سي وات سي سين ايميسيون لا ريليجيون اي لا سوسيتي تاي نك ني فاسيينا واختاني تيم بو ام سولو tam aju ci wàllu jikko ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na wax naan innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq xam leen ne dañ maa yónni ngir ma mottali jikko yu rafet yi euh, li gën a am solo ci mission am kon bu ñu seggee waxam boobu moom yonent bi sallallahu alayhi wa mooy wàllu jikko moo ci gën a am solo ak la koy defar daana wax na ba léegi addabani rabbi fa ahsana ta'dibi yàlla moo ma yar rafetal sama yar yàlla suñ boroom tabaraka wa taala ci boppam bi muy tagg sayidna muhammad sallallahu alayhi wa moom moo ko bind fii ahsani taqwim ci gën jaarafe ci bindin def ci moom lu deful ci kenn waaye ba koy tagg dafa romb bind romb yépp tagg ko ci jikko daan ne ko wa innaka la ala xuluqin azim euh, aji nekk nga ci kaw ay jikko yu màgg kon loolu moo tax di waxtaane ay jikko di ci bàyyiloo xel suñu bopp ak suñu mbokk jullit yi di am solo saa su nekk ndax alquran mo ne wa zakir fa inna zikra tanfa'u almu'minin na nga fàttali yow seydina muhammad ndax fatali day jëriñ ñi nga xamne way gëm lañ lool motax kon ñu bëggona waxtaan lenn ci lo xamne dafa aju ci jikko ndax dafa am solo trop ndax yoon bi sallallahu alayhi wasallam aussi daan na wax naan nit dana jot ci jikko yu rafet dara jaay ko xamne day naafila guddi di wóor bëccëg koo xam ne day naafila guddi di wóor bëccëg te yàlla rekk tax tuyaaba jëm cay am nit dana rafet ji ko am lu ni toll fekku deful la koo ko def muy lu mat a bàyyi xel bu ne jikko rekk ñaari xaaj la jikko yi nga xam ne sharia daf ko rafetlu bëgg ku nekk di ci góor góorlu ngir mën koo wàll ña ca des te su boobaa société bi daal di baax ak jikko yi nga xam ne dañ koy tuddee al axlaaqul mazmuma mooy jikko yu ñu ŋàññi nga xam ne ku nekk daf koo war a moytu ngir lu yàq société axlaaqul mazmuma nag bari na euh, mooy jikko yi nga xam ne sharia daf ko ŋàññi ne jikko yi baaxul bokk na ci jikko yooyu lañuy ñuy tuddee an nifaaq nifaaq buñ koy firi mooy euh, feeñal nit ki di feeñal lu nekkul ci moom mooy hypocrisie yaakaar naa ci tubaab euh, muy lu mat a bàyyi xel am lu ñuy tuddee aussi an faaxul ijtimaa yi muy euh, même kàddu boo xoolee ci alquran suñ boroom tabaraka wa indi na benn saar di ca wax loolu kese seeni jikko ñoom naafeq yi muy suratul munafiqun te définition bi du dara lu nit ki di wax lo xamne nekul ci mom wala muy jëf lo xamne nekul ci mom suñu waxtaan ak insha allah dañ bëgg wax lan moy waral jikko bobu di nek ci doom adama ak naka lay manifesté wu insha allah mu melni ni bi sallallahu alayhi wasallam joxe woon na màndarga yi مي آية المنافق سلاس إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمنى خان أم يشي دولي بن بن بنشي دولي من وإذا حلف فجر واي بيغنا سيو تي احاديث موي نيت يوي موي كيغا خامني دا فا نافق نوكاي خامي تي نيت نيت بن بو تي نيت ام بو نيك ريك am na benn ci màndarga màndargay naafeq doonte sax mënuñ koo considérer comme naafeq bu fekkee lu wax du ko bu waxee fen maanaam saa bu waxtaanee rek wax lu dul dëgg kooku am na benn ci màndarga yi koo xam ne saa bu joxee rendez-vous daal di faussé ci lu dul benn ngànt ndax nit mën naa joxe rendez-vous faussé fekk dafa am ngànt kooku duñ ko ca boole waaye ci lu dul benn ngànt ci bakkanu bànneexu boppam kooku su boobaa am na ci benn màndarga koo xam ne saa buñ ko wóoloo ci dara mu daal di wor def lu wuuteeg lañ ko wóoloo woon kooku am na ci benn ku dajale ñetti yem nag kooku moom naa naafeq la su boobaa te naafeq li tax mu gën a garaaw mooy euh, moo gën a garaaw kéefër ndax yéefar moom wane na position mu leer ne gëmul gëmul yàlla gëmul yonent Euh, jullit ki gëm it wane na position am ne yàlla la gëm yonent bi la gëm loola lay def waaye naa naafeq mooy koo xam ne féetewul fii féetewul fii laa ilaha ula wala ilaha ula comme ni ko alquran di waxee ñooñ nag la alquran di wax naan euh, ñoom ñooy nekk xooñu safara buñ ko mënee firee noonu innal munafiqina fi daraki lasfali min an nar wala nga tajida lahum nasira euh, xam nga xooñ mooy moo mooy gën a ñor ci ceeb yaakaar naa waaw yaakaar naa tàngoor yi moom lay gën a sonal moo tax ñu ne keroog yowmal naa feq yi ñooy gën a ne ñooy nekk ca étagères yi gën a suufe ci safara ñooy nekk xaw ñu safara maasallah yàlla nañ ci yàlla musal euh, bu ñuy jàng ca fiq ba danañ koy firee nag mooy koo xam ne day nëbbu euh, kéefar feeñal ak njulit nga xam na ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam munaafiq lañ ko daan tuddee waaye ci suñ jamono gannaaw yonent bi zindiq lañ leen di tuddee am ñu leen tuddee an nifaaqul ijtimaa yi comme niñ ko junjee sànq bëri na nag yu koy waral daw responsabilité dana koy waral wala ragal wala yu mel noonu euh, bokk na ci yiñ jukki yi nga xamne ne segg nañ ci yi nga xamne mo koy waral moy li ñuy isdiwajiyatul akhlaq euh isdiwadi isdiwajiyatul akhlaq mun nañ ko firé euh ci misal bëgg protéger nit xamne nit nekkul ci yoon nga diko protéger koku dañ koy tuddé isdiwajiyatul akhlaq ndax yow li nga fas ci mom da xam ko bokkul ak li ngay feeñal ci moom kooku la ñuy tuddee isdiwaajeetul axlaq kooku tamit euh, même liñ waxoon ci définition bi rek du ci génn mooy yaa ngi feeñal loo xam ne nekkul ci yow kooku kooku day waral ni fàq bu fekkee nag euh, gis nga nit nekk ñàkk nekk ci yoon nga laaye ko biir xamal ne ko nekkoo ci yoon moom mu continuer ca lam nekk kooku moom la engagé moom la concerné yow sant santuñ la ngay wër di jéebaane doomu aadama yi ku nekk nga naan nekkul ci yoon euh, ndax dañ ne balaa ngay euh, balaa ngay bale mbedd mi nanga bale sa buntu nekk wala nga bale sa buntu kër ba mu set bay sa wewu tànk euh, kon nekkul ku nekkul ci yoon rek ngay wër di ko jéebaane wala di ko critiquer ndax mun na am yow ci yow miy wax ci sa bopp yow yaa nekkul ci yoon kooku waxuñ ko <clears throat> waaye nga gis nit nekkul ci yoon nga laaye ko biir jàpp nga ne nekkul ci yoon nga laaye ko biir loolu la santaane ci lislaam wala bu fekkee laaj na euh, muy loo xam ne laaj na nga euh, nga jéebaane ko nga dénoncé ko ba ñëpp xam ne lii di yoon ngir lan loola bañ a continuer di yàq société loolu tamit baax na waaye bu fekkee loo xam ne dafa laaj maandu la laajul ñi di ko siiwal ndax siiwal lu bon kenn santaane wu ko su boobaa nga maandu ci la la sharia sant bu fekkee nag loo war a jéebaane ci jéebaane woo ko foofu su boobaa lay tudd isdiwaajatul axlaq te mooy loo xam ne day waral nifaaq muy naafeq bi ci topp mooy isdiwaajiyatul maayir euh, mooy euh, caractère yoo xam ne maanaam nit ki am ay caractère yu wuute maanaam la muy woote ak la mu gëm bokkul par exemple yow da ngay wër naan nangam baaxul nangam baaxul nangam baaxul waaye saa boo ñàkkee pexe yow danga def nangam boobu par exemple boo nekkee ci embouteillage bi yaa ngi dénoncé indiscipline bi nga xam ne ñenn ci chauffeur yi am nañ ko muy exemple bu ñu jël euh, maanaam aw foo xam ne code de la route la koy tere wala def loo xam ne wuute nag Euh, li ñu tëral ci luwaa yi waaye yow saabu bu affaire bi xatee nga yàkkamti da nga def loola ngay tere kooku tamit dañ koy tuddee nifaaq def loo xam ne yow ci sa bopp da nga koy tere euh, ngir lan sa intérêt bopp saabu ko sa intérêt laajee nga def ko waaye bu ko sa intérêt laajul rek nga sabote ko kooku baaxul kooku day indi nifaaq euh, baaxul bi ci topp mooy ad dooful axlaaqi dooful axlaaq mooy koo xam ne dafa am faiblesse ci wàllu ay jikkoom bi maana من الضعف الأخلاقي يمكن أن يكون منافقا والضعف الأخلاقي هو تعارض سلوك الشخص مع موقفه الفعلي mooy li ñu doon wax sànq ba léegi rek mooy nit ki li muy feeñal ak li muy nëbbu bokkul bu wéetee la muy def ak bu feeñee ci biir nit ñi la muy def bokkul moo tax alxuraan di ci insisté saa su nekk bëri na santaane yi muy santaane ne dangeen ngeen ko war a def bu ngeen wéetee ak bu ngeen nekkee ci biir nit ñi jàng nañ inna allazina yaxshawna rabbahum bil xaybi lahum magfiratun wa ajrun kabir ak ñi nga xam ne dañuy ragal yàlla maanaam bu ñu fàddoo bu ñu wéetee ñoom kese bu ñu nekkee ci biir nit ñi ak buñ ci nekkul ñooñu la yàlla dikk Euh, fay gu màgg mm, taqwallahi fi sirri wal alaaniya mooy ragal yàlla ci lu feeñ ak ci lu nëbb te buñ ne ragal yàlla mboolem jikko yu rafet dugg na kon kooku bokk na ci li nga xam ne kon day dugg ci wàllu ixlaas muy contraire nifaq li ngay feeñal kon dafa war a dëppoog li nga xam ne moom nga moom nga gëm kon yooyu bokk na ci yi nga xam ne kon day waral euh, nifaq mooy naafeq euh, bokk na ci ni muy manifesté woo nag wax dara ba pare def leneen wax dara ba ñëpp yaakaar ne loolu nga gëm nga dem def leneen danañ koy ji suñu politicien yi léeg-léeg xamu nag noonu la demee wala wala déet bu ñaareel bi mooy mooy moom la ñuy tuddee lan klaxonner euh, droite signaler euh, signaler gauche jàdd droite kooku baaxul bokk na ci nifaaq niki noonu tamit jëflanteek nit ñi ci jëflante boo xam ne nekkul lu juste maanaa na ngay jëflanteeg ñi nga xam ne yaakaar nga am dara ci ñoom bokkul ak ñi ngay jëflanteeg ñi nga xam ne yaakaaroo dara ci ñoom kooku nifaaq lay euh, lay firi ndax boobu sax dana la dugal ci beneen jikko boo xam ne dañ koo ŋaañi muy lu ñu tuddee tamalluq moom la olof naan sibooru wala ñammasle ah, manam maanaam ak nit ci lo xamné yow say intérêt personnel kese mom nga cey wut dara yalla amu ci wala nit koko amu ci ben njëriñ tok tamit dana manifesté wu ci façon bobu bokk na ci tamit di joxe ay conseil di wax nit ñi lu baax ta do ko jëfe ah, atamuruna bil birri wa tansawna anfusakum ci alquran ndax da ngeen ni digal nit ñi euh, lo xamne ne lu bax la ba pare ngeen di fàtte seen koku baxul da ngay dal euh, sama mas gi ñi wax ci diine lu bari ñoy xamne dañuy wax rek pour wax ni waye la wax ak lañuy jëfé bokul bokkul ñooñu yàlla tëkku na leen ci alquran jox na leen avertissement kon loolu mata baye xel la na ci euh, ngistal moy nafiq, moy الدعوة إلى التسامح الزائف مع جلد الآخرين الذين يخطئون في حقهم waaw maanaam nit ñoo xam ne teguwuñu ci yoon waxoo leen li ngeen nekk du yoon waaye ngay seet noo rafetalee seen der rafetal deru doomu aadama kooku farata la ci jullit bu nekk mu rafetal deru mbokk jullitam fexe ba moom ci boppam deram du yàqu waaye deru mbokk jullitam du yàqu waaw mais nam ko war a defee nag mooy mbokk jullitam bu nekkee ci loo xam ne bu ca nekkee deram mën na caa yàqu mu xamal ne ko li nga nekk baaxul waaye au lieu que mu bàyyi ko mu nekk ci loolu nga xam ne baaxul ba pare euh, di ko di ko jéem a ragal deram su boobaa moom complice la day mel ni la kooko di def moom daf ca ànd kooku la ñuy tere ndax bokk na ci lii rafetal lislaamu doomu aadama mooy mu ñoŋal deru mbokk jullitam mboolem lu koy rafetal rek mu nekk ci waaye nag na fekk muy loo xam ne yoon la niki noonu tamit bokk na ci yi nga xam ne lim nañ ko ne naafeq dana ci manifesté woo mooy feeñal ak koom ak am-am feeñal tamit euh, richesse euh, niki noonu tamit fekk yaa ngi ñàkk yaa ngi aajowoo waaw ah, feeñal na yaa ngi am feeñal na ku am nga fekk ku ñàkk nga am na ñu ko ci boole benn woykat nag waxoon na ne uktimil amrayni faqran wa ghinan ah, waxsubil ah, waxsubil fasla wa jaanit man basal mu ne na nga ñaari mbir boo amee nanga ko nëbb bul fesal foo toll rekk di wane sa koom-koom ak sa am am waaye boo ñàkkee tamit na nga ko nëbb bul ne def foo nekk di jàmbat nanga nekk ci diggante bi kon bul feeñal am bul feeñal ñàkk bu mu tee nag ngay fàggu di daan sa doole kon kooku lu mat bàyyi xel la ndax feeñal ne danga am fekk dangaa ñàkk kooku feeñal lu nekkul ci yow la ba léegi moo tax muy dugg ci euh, nifaaq hakaza feeñal na atazahur bil itinaa bil axirin baynama yakunu daafiuhum huwa xidmatu anfusihim feeñal na da ngay dimbale doom aadama yi fekk yow ndimbal lool yépp jubluwoo ci lu dul say intérêt personnel waaw damay dimbale daara yi taalibe yi di dem joxe ay t-shirt wala ay nangam fekk jubluwoo ci lu dul am ay financement yoo xam ne ma nga jógee feneen yoo xam ne yow sa njëriñu bopp la kooku baaxul bokk na ci loo xam ne nifaaq la ni ki noonu tamit bokk na ci màndargay nifaaq ataxaddus an ahamiyat ittibaa ittibaaci nnaas lil axlaaq wa tasatturu ala suui axlaaqi zumalaihim mooy bi ñu waxoon sànq rek euh, di feeñal rafetuk jikko nit xam ne am na ay jikko yu fekk ay jikko yu ñaaw sax rek la fees mais yow ngay wax ci moom lu rafet loo xam ne amul bokk na ci nifaaq mooy jéema a àtte doomu aadama yi di jéema a nit ñi ci la nga gis ci ñoom koo gis ak sujet ko waaw bari na koo xam ne day wax ci nit ay jikko yu ñaaw ba jikko yu ñaaw yooyu mujjee nekk ci moom te du ko yëkk kooku lu mat a bàyyi xel la kon jugement lislaam daf koy tere inil xukmu illa lillah comme ni ko alquran waxee yàlla rek moo mën a àtte moo yeyoo àtte te lim tracé rek ci lañ war a jaar ngir àtte waaye àtte ci sa bànneexu bakkan doomu aadama nit ñi léeg-léeg danañ ci sawar lool juge doomu aadama rawatina nag koo xam ne xamoo ko kooku lislaam daf koy tere ndax la nëbbu yàlla rek moo ko xam ak sa kon loolu lañ bëggoon indi ci gàttal rek ngir waxtaane ko ci jikk boobu di euh, euh, naafeq ñu gën koo xam ci hypocrisie muy jiko bu bon bo xamne ne ku kep ku ko am rek do am mujj gu rafet kon ñu bayilo ci xel suñ bop bayilo ci xel suñ mbokk julit yi di wax ne haza in uridu illa al islah mastata'tu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh